mu ne woon inna may zakka naka def na asakaal maadinu ay mbellum kee boo dee gas fii min bi wurus a ci nekk wala xaalis lu génn da nga ko asakaal danañ misaal ci kanam bu fekkee ne nga dem ba ñu mat misaal fekk tàmmali nga benn reen boo xam ne jeexagul nga asakaal loolu continuer reen bi lu ci génn nga asakaal kon mu ni wax ak mu waaye atteem li limaam imaam bi nag mooy féete woo ak képp mbel moo xam ne da nga koy gas ba mu war a génn muy limaamul akam day suñu mooy xalifa bi wala koo xam ne ki yebal na la rek ndax bu fekkente ne waxul sax asaka ji rek waaye ñun bi ngay gas keneen mën na ñëw dal ci sa kaw wala mu ne maa moom kii wala maa leen jiitu woon wala leen moo tax imaan ji moo amee atte bi naka noonu kon mooy libal ku taxawee li nga ci war a génne muy asaka ak fi nga ci war a yem nga ne ko waaw yi imaan imaam moom naka jekk moo féete woo soppandiku ci loolu ba seet la nga cay moom ak la nga ci moomul muy asaka mu ni walaw ba faw mu ne walaw bi ardi mu ayyanin doonte ci suufas ku ñu ràññeel la suufas diw sàngam ba tey ilima ko soo fekkee mbel nga ne ma mën ngeen mën dikk fii jënd kër ah waaw kër gi mbel la ngi fi kooku du daañ ko àtte bu fekkee ne yow yaa jënd kër gi te kër gi mbel na ci yow yaa ko bu dee sa tool nag bu dee sa tool nag itam mu dañuy seet ndax tool bi da nga koo luye wala da nga koo donn wala da nga koo bokk nit wala alalu toolu nguur gi la ñu daggal ñu jox la ca loo war a béy dañ ko seet la waaye bu fekkee ne kër la daal moom nga jënd ko moom moom lu nekk ci biir yaa ko moom dana wax yooyu yëpp yaakaar naa ne mu war a nekk ci kanam dégg nga mu ne wala bi at mu ay yeneen du fekkonte ne dangaa gas dara ba dak woo aw wurus wala xaalis ñu seet fi nga ko gas muy toolu diw toolu diw sàngama xam nga moom xamu ci woon dara koo ko xamul ndax dara ngi ci wala déet yow yaa gas ba génne ko ba jot ko muy yéefar wala muy zimmi yi kooku itam du te yow yaa koy moom waaye ilimaan moo amee atte bi ñé nga nga ne ko faaw mu ne laa moom loo ko tam dara suuf soo xam ne nag di suuf si ñu ràññeel waaye dafa am diw sàngama ko moom mooy li nga doon wax fekkee ne tool bi nit la ko dogal pour nga bay rek bay rek ngeen ci seq waaye moom moomoom suuf si bu boobaa xam na mu doon naag fii mu wees woon mu ne waaw waxu moo di imaam wala bi arab ñu ayee donte ci suufas imaam yi daal moo amee àtt bi donte ci suufas ku ñu ràññeel la itam mu ne nag illaa moom loo ko te ndax suuf si mën nañoo ràññeel ni jiir sàngam wala waa dëkk sàngam ñoo moom suuf si ñoo koy dogle dëkkul ñu ràññeel ni jiir sàngam moo moom suuf si bu fekkee nag illaa mun loo ko tan li ma saaliha fekkee ne dañ koo moom moom suuf si ngir koo xam ne dañoo def ak moom mu saalaha mu saalaha mooy léegi dañoo waroon a xeex ak ñii benn ay yéefar lañu ñu di ay jullit ñu tuubloo leen maanaam woonu leen ci lislaam ñu bañ ñu nangoo na nga def ak ñoom ñun mu saalaha nga mu saalaha moom bari na ndax ni ko fuqaaw yi ki lee jaqani yebun déedéet unu ba tax xama fi jiri mooy oxut nu bayr ba nu nu bayr badr tabuk kii xaybar li ñu jëflee ñoom ñëpp xatlu mann fidiya jizya rëq mooy istiqaaq liman mooy seet bu ñu xeexee yëfar bi ba gañe leen wala ñuy def ak ñoom musaalaha bu dee dañoo xeex ak ñoom ba not leen te li maa ngi seet buñ leen waree rey ñi ki tey ñu xam ne nit yi yàqkat lañ ñoo xam ne dañuy yàq lislaam te dañuy yàq woote bi dañuy dem ci béréb di wax ci lislaam ñu saal ba ñu ñu bëgg a kii ak di di régler lislaam yu mel noonu nga xam ne seet nañ seet daal rey leen daal moom la ñu mën ñi ki tey dëkk am na ñu ngi ci defoon sa waaye gis nga bi alxuraan ñëwee dafa dal ci seen kaw fekk xalaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xalaatu Seydina Omar ñu wutee xalaatu Seydina Aboubacar radiyallahu anhu fekk bu xalaatu Seydina Aboubacar mooy la gën fa yàlla mu suñ borom ci alxuraan xupp leen ñu nga xupp leen ndax ijtihaad yonent naa ko def waxtu boo xamee ne xew-xew am na te aaya wàccegul te mbir mi da ngay daal di jàpp léegi wala nga bàyyi léegi waaye du ñëgal booba la daan diisoo bu diisoo nag ci at ñu seet ñu seen xel jàpp noonu noonu lañ defoon si dégg nga waxut dañoo rey ñeen jàppoon nag ci biir xaalis rek ñooñu dañ leen a rey ak ñi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam dafa neena loon seen deret ku leen gis na leen rey man ñu seet seet jéggal leen bañ leen a laaj dara am na ñu jàppoon ci banu Hashim am ñoo xam ne defaloon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay njekk ñu baal leen fidyatu mooy ngeen jotu façon boobu waa Badar moom la ñu defoon jizyatu mooy léegi fa seen réew nekk sori na mënu na mën nañu préparer ay guerre dajale ay ay ay gànnaay fas yéene daal ci ñun te duñ ko xam mais nag léegi dañ leen di laaj jizya espèce impôt daal at mu ne ngeen indi ko bu ñu ko indee atay ak gisee ak ñebe bi moom saaxiroon dañ ne dañ leen di talaata di leen di leen di waxal daal ba ñu ne dañ ko nañu daal. dégg nga istiqaaq bu fekkee ne gis nañ ne ñii ñàkk a jaxasoo ak lislaam ak yu yu bon yi ñuy dégg te du dëgg moo tax tuubuñu waaye bu ñu leen defee jaam ñu ko leen ci réew yi lislaam yi daañu tuub bu ñu xamee lislaam gis ni kii bi ñu mel daañu gën a leen lislaam gën a leen béy te daañu tuub ñu xam ne kooku seen njëriñ la. njëriñu lislaam lañ doon di def istiqaaq imam bi daal mooy seet nga xam léegi su fekkente ne mu ne illaa mun ko tan li ma saaliha bu fekkente ne suuf si nga xam ne ci lañ fekk alal jooju nga xam ne mbell la livre boo xam ne dañoo def ak moom musaalaha ci bañ a xeex moo ko moom kooku nag moo moom suufam kooku moom falahu atte bi limaan dootu ko moom moom yéefar boobu ñoo yéwan lool moo moom suufam kon moo moom la ca nekk du caa génn ko limaan mooy taxawu ba ne ko defe ko nii defe ko nii déet yëf yi bopp la yu moom la bopp yoo xam ne kooku lu ñu warloo moom daal mooy moo xam gisee la wala fidyee la loolu rek la ñuy jëflante moom alalam duñ ca génn ak duñ ko kii wa gumma mu ne tàppeekut na baqiyatu irqi yi des yi di reyanam ba moom moom laa misaalum teew wa in traxa doonte yeex na it al amalu jëf ji parce que dafay liggéey di génne di génne ba mu yàgg mu toog nopp lu yàgg wala mu toog ay fan wala mu tukki wala mu leen doon dellu see di continuer dañ koy dañ koy jox rek mu ne leen mu ngi continuer di di gas rek di génne or bi mu ne nag waaye laa maadina du jaajëf mbell mu nekk fii mbell ma nekk fële mbell ma nekk feneen ñu bëgg koo tàppee pour ne su ma tee ni sax ñu génn ci déedéet dañuy seet mbell mu ci nekk rek mu ni wala irqu wala irqu aaxaru ngeen mu ni wala irqu aaxar aaxaru de waaw wala du ñu tàppee itam irqun ab reen ñu tàpp ko aaxaru ak beneen doonte jëf ji dafa jokkoo woon itam nga xam ne ci benn gis nga leen kat te xarfet mooy lu yees bi xaala loo xam ne ay na xawluhaa atam ni ki tey dañ koo mayoon xaalis wala mu doon ko jógewul daal ci yaxantu amul daal xaalisam du commerce ba ba mu ba mu jur ba toll noonu déedéet dañ ko daf koo dikkal rek daal te jógewul ci juram lu ko jur wala dara wala lu ko meññi dañ ko daf ko may am daal ñu may ko ko wala mu doon ko wala lu mel noonu daal loolu nga xam ne moom lañ ci def fekk nga xam ne mat na nisaab wala mu manque ko waaye xam nañ ne mat toog na fi at ñu ne ndax moom dañ koy tàppee bu amaa bu gasatee miin ba génne ci moom itam xam nga faayida moom bala nga koy asakaal mu mat at léegi bi mu gasee comme mbell moom bu génnee rek war ngaa asakaal faayida bi matoon na wala matul nan seet matul matul woon nisaab léegi mu dal di gas ay reen am ci loo xam ne bu ñu ko ca boolee dana mat nisaab wala li mu am foofu mat na nisaab te lay itam asaka war na ca ndax dañ koy tàppe wa taalluqul wujubi ak waru maanaam aju war génne asaka bi ixraaji yi ci génne ko ca mbell ma maanaam mu ngi ay mu ngi sax ne waxante bi nga xam ne moom la sharia waxante doomu aadama yi ci waru génne asaka ci li génne ci mbell nga xam ne bu génnee rek daf booba la daal di war ba nga xamee ne moom gas na ba mat nisaab rek fi saa si du nag ba sellal ko ba raxas ko génne yi ci bon peese soog a peese li ci baax nga xam ne mooy dëgg dëggi or bu sell bi kon fi saa si rek ba mu ko gasee ca mbell mi rek la ko war a génne wala moom kay bi tasfiyati yii moom kay daf koy sellal ba nga xam ne lii or dong la dara jaxasoo si mu seet bu ko dee peese bu ko dee natt bu ko dee lu mu ko mën a def dara dugub ñaar yëpp su ne am nañ ci dégg-dégg ndax bu fekkee ne dafa am faayida xarfet mu toog si moom ba mat at nga xam ne war na koo génne asaka wala mu mat at te matul asaka mu gasub reen léegi muy or ñu seet ko bu ñu ko boolee mu mat asaka ndax daf koy boole asakaal ko wala déedéet leekaay moom donte am na at te bokkul ak lii itam daf koy téye ba mat nisaab rek mat at mu soog ko asakaal lii itam à part la koy asakaal wala déet ba tey tarat dugg wala ndax ngas gi muy gas mbell bi ci suuf génne keeñ ndax bu ko génnee rek la dal di war a asakaal balay génne yi ci taq di ko càmbar ba mu set wala moom kay balay war waragul bu ko defee baax na waaye waragul ci moom bala war ci moom daal mu raxas ko ba sellal ko segg ko ba mu càmbar ko ba nga xam ne weñu kese gi muy wurus wala muy xaalis moo fi des ñu seet ko mu mat booba la ko lay soog a war ba tey ñaar ñëpp ci nekk tërë dugg lañ xëccoo ci kanam mu ne ma jaasa dagal ni def umoo ak gëñam mu mu xool lan waaw jërëjëf day maanaam yàqu ko daal fi ne am na fi nekk lii ma yàqu ko mu ni wajaal si kon dagal na daf woo ak joxe moom la muy génn bi ko jëratin maanaam la muy génn sa kii bi mbellam nga xam ne daf koy fay ci li cay génn léegi bu caa génn ci li mu gas la koy fay waaye li ñu waxante mu wàkk foofu it daf koy génn ci poosam wala ci jëlee alal dégg nga ni ki kii tey masalan nit ki day gas bis dañ ko fay nangam wala day gas lu toll ak taxawaayu nit ci guddaay ci xóotaay mu fay ko nangam dañoo bëgg xam nga jaay ak jënd dañ cee charte gannaaw ba ñuy chartee ne yan sart ngeen xam ci jaay lu ñu mën a jaay lu dagan a jaay nañ ko moom nañ ko moom man dagan ak jaay lu dagan a jaay lu dagan la jaay mbaam sang- sàngara sàngara mbaam xeex xoor xoor xoor ci góor
waaw waaw waaw mën ko jaay bi bu ko mën ko moom waaye mën ko jaay waaw mënuñ ko moom mën na bàyyi ko waaye xoor boo xam ne dañ ko dañ koo def takkaay takkaay takkaay sañu koo takk waaw ko jaay.
ñu sañ na moom ne bu léegi kon li ñuy kii na dagan aywa bu laab bu laabul nag dalam na def déedéet bu daal bu laabul dagan ci jaay ñu ko ak lan te bu mu am benn erreur xarab ak xatar xarab ak xatar est-ce que lu ñu wute xarab ak xatar lu ñu wute xatar xatar moom moom boo ko xam xaral daa am lu lu lu lu ci xam ci ko ci koy gën xam moom xarab xatar kon dafa nekk solo ñu ngi ne jën ci géej gi ma di ko lay waaw kon mën nga ne xarar mooy li nga xam ne xam nga ne am na waaye wóorul ndax yokk na daan ko mën a jàpp wala duñ ko mën a jàpp daan sa mën a jot wala duñ ko mën a jot xatar mooy li nga xam ne wóoru na am na wala déet loolu mooy lan tey sama gëléem bi bu juree te ëmbul sax waxtu wu juree rek naa la jaay doom gi ci daan kooku mooy mooy xatar li nga xam ne xamul dana amam déet xarar mooy loo xam ne am na non seulement xamuñu lu mu toll waaye xamuñu daan ci mën a jotam jën bi ci picc yi ci sama tool bi wala jën yi ci sama dégg kon li dagan a jaay mooy loo moom lu laab lu dagan jullit moom ko lu dagan jullit moom ko lu xatar du xatar amul la ne
yoo xam ne dañ ko dañ cee yokk dañ cee yokk maanaam nga jaay meew kooj la waaw waaw waaw njar njar Njar.
si ndox waaw njar ngay jaay ñoo def ci def ci ndox waaw mooy njar wala lan kooku mooy xis xis xis xis waxoon na ne xilaaba ak xadi am moom ci jëfe nii la bokkul ci lay jaay kooku moom xilaaba ak xadi am moom mooy publicité bi moom lu araam la waaye des na des na lu ñu xamul matuwul danga ne lu ma jaay la yëre guddi doo xam li ci nekk
léegi gërëm da ngay jaay ca gànnaar foofu mu dugg moom ci yooyu waaw kooku itam xatar xa- xarar la xarar la xarar lay doon.
parce que xam nañ ne am na waaye wóorul daan ci mën a jotam di xamul ndax gëléem nga dee na wala feebar na ba lan na dana dee wala tànkam damm na wala dara xamul lu mu ci doon
li xew léegi nag nga xam ni da ngay jaay
loo ko seetlu daganul ko
maanaam léegi da ngay wuti bitig yi di jënd léegi dañuy taal lamp yu rafet yoo xam ni day day jox rafetal kii bi day jox dëkk bi taar waaw ba waaw question ngoog xilaaba xilaaba itam ngoog boo ko jëndee ba génn moom bu bon xaram la yooyu yëpp dafa yëpp xaram dafa daganul ci yooyu yëpp koo di kolobaan ci moom ñun ñu ngi leen di sàcc li ñu ñu am sàcc la moom dëgg dëgg. mu ne wax dëgg woo dagan na jañam bi ko jëritin moom mbell mi ci bu yool xëy na naq din waaye nag bu ko fayee kee luñ ciy bañ dagan na masalan xam nga li mu waxoon sax ba di ko misaal mooy léegi li ngay jënd ci moom xam nga da nga koo luyee waa ji da nga luyee service ñaari loxoom maanaam ka jëf jëfam daal kàttanam dooleem doole ji war nañ ko xam dan na la boo gasee lu mat taxawaayu nit maanaam deux mètres trois mètres wala un mètre cinquante ila axiri ma fay la nangam wala soo gasee bis ma fay la nangam ñu xam ne kon xam nañ li ngay jaay mooy liggéeyu bis kooku dagan na wala xóotaay bi li nga gas donte or bi dafa bari lool nga gas benn wàllu taxawaayu nit it taxawaay benn wàllu taxawaayu nit ba tey gasuloo gasuloo xaama te xaama ngeen waxante am benn wàllu kon li nga jëlee woon ngeen di la lay fay loolu dikk na ci xam nga lu bari na lu sëriñ si def te du dagan ñu mel ne miraas dërëm tànk ndaxte yow sa coono rek nga am mën nga miraas miraas moo xam ne bu ñu defee dërëm tànk nga am ci 10 millions te doo fa am lu nga ñetti heure ñetti waxtu wala ñaari waxtu mën nga miraas miraas moo xam ne mën nga ci am bisu lëm te doo ci am incha allah lu mat cinq mille
léegi foofu na lañ ko war a nekk nit ki coo yoon ay coonoon rek waxante ba d'accord ci li nga wax ak jaay coonoom daal la mën a jaay maanaam ni ñuy def noonu am dañu ñëw naa xam dañu seen pourcentage maanaam ci ci ci ci miraas te ñu dikk ndaal léegi miraas bu ma miraasee daañu ñu may fay météo 5 pour cent lay loolu lay def loolu la ñuy jox def loolu lay ah parce que ndax gannaaw ñii nga xam ne ñooy miraas bi ñu si gën a bari ñii nayif ne ñii xamul ñu nu mu demee rek dañuy ci dañuy sawar dañuy d'accord fekk na moom it riba la lekk ndax coonoom rek la war a jël mën na waxante ak ñoom ne ñaataa yi doon ndox am na doom am na yaay am na maam wala am na baay am na jabar am na nangam am na nangam li mu kii li nga li muy doon ñu seet mu toll xam seet après coono bu ci war a am ñu waxante nag léegi ci loolu waxante ba d'accord jeex ay pourcent moom dafa mel ne day bëgg daal di dugg ci sunu yooyu alxuraan di wax.
waaw waaw pourcentage am naa yàlla.
waaw loolu la ko wax de ah waaw wax na dëgg de ah waaw. ah sëñ bi mu ngi wut alal rek mu ngi wut te bari na sax ñoo xam ne duñ miraas miraas mu jaar yoon.
de di diviser rek.
waaw sëñ bi rek dañ koo mën si waaw wa ida xadara xamar ulaka dalika al masakin fattaqu min kooku itam xam nga am miraas léeg-léeg du jeex buñ joxee borom cër yëpp seeni cër amul kuy doon asaba alal ji day des ala kulli xaal bu desee nag day amoon naka koo xam ne dañ koy doon kalaale koo xam ne amul kenn ku ko doon bu gaañu alal ci baytu maal baytu maal mooy jullit yëpp daal mooy alal jullit ñëpp a ko war a doon ñu def ko ci baytu maal bi mu dem ci njëriñal jullit ñëpp fépp fu ñu tuddee baytu maal rek mooy loo xam ne jullit ñëpp a ko bokk amul ràññeel léegi bu fekkente ne ko gannaaw jullit ñëpp ay mbokk lañu ñi nga xam ne nag ñooy jege ñaale deret yi yàlla moo séddale ci alxuraan miraas bu ñu seetee nag li des amul kenn ku ñu tudd ku ci mën a am ku ci war a am ci mën nañ cee maslaxal ulul qurba ci juróom kenn dañ leen waaye du tudd cër du tudd miraas de dañ leen ko may rek gannaaw surtout ab baytumaal am na fi ñëw nga mu ne kon bu fekkente ne waa ji waxante ngeen ci mu gas lu ma taxawaayu nit wala mu gas ñetti heure wala nangam nga di ko fay bu ko fayee kee waaw loolu moom mu ma ci laa posé une question lu tax ñu tere nga fayee ko kee def nañ da ngeen dul jàng bu baax ko am na da ngeen dul jàng bu baax ndaxte kee kee la génne waaw su génnee kee nga fay ko ci kee.
Hmm.
léegi nag da ngaa jëndee kee kee.
kee kee loolu rek la lan ak lan moo daggan moo dagganul jaayante ci nangam ma jaay la nangam ci nangam masal bu dee ci ñam
bu dee ci ñam su fekkee ni ñam boo xam ne bii mënees na ko mënees koo denc moom. ñu ay fruits yi. mënees na ko mënees na ko jaayante moom.
ak ñu bu ñu denc ak bu ñu mën denc mën nañu koo jaayante Si suñu jaayante niveau moom affaire suñu asaka dafa mel ne ci asaka nga dellu maanaam rek léegi li ma lay jaay li ma lay li ma lay jaay ñam la li nga koy jëndee ñam la
waaw luñ ci tere foofu mu bokk fenn bu leen mën a tàmpi ne dugub suuna dal waaw mënees koo jaayee dugub bu saak ëppalante ci
waaw kooku ci wenn xeet léegi nag du ñu benn xeet nag xeet du benn du ñaari ay xeet yu bokkul la so soob dugub soob dugub waaw waaw waaw waaw waaw waaw xam nga loolu daañu ko def pël yi daañu ko jaay bu mu jëm digg rek lu mu jëm dig ngoog jaay ñam jënde ñam mu jëm dig moom bu maaraam ëppalante moom ñu ngi ko tere ci loo xam ne considéré ñu ne benn xeet la benn xeet benn xeet daal ñu nga xam ne nag jéeg li ñu benn xeet la li ki tey masalan ñebbe yi est-ce que ñaata xeet la benn ñebbe yëpp benn xeet la ñoom ñebbe turmus adas kii xam shams di nga kii fuul bari na ne yooyu yëpp benn xeet kenn mënu cee jaayante ëppalante ci seen ni ma jox la ñetti kilo ci kii ma jox ma ñaari kilo ci kii dégg nga muy nag kon dana dagan nga jox mbell mi waa joo xam ne mooy gas nga di ko surwee xam ne boo ko wóoluwul nga di ko fay ujura waaye xëy naq bi di ko fayee kee xalaa anal muxraja ngir appooy ci naka lu lu sa génn lil madd foo i lahu ñeel na ki nga xam ne moom lañ ko jox kooku mooy madd fii mu nit لا لا الحكمة ضيف عين عين غير ابن بيد مع الجهل مقدار إحداهما نظرا لصورته ولذا جاز دفع معد من غير النقد أن أجرة النقد على كل المخلوق كبرى جنجل يجري النقد est-ce que am na maadin yan la yu dul naqd am na bari na ayo yan ay sanko
شب ak ah lu ñu yàlla
sel sel yooyu ñuy génne.
waaw sel frère hmm?
frère.
fer waaw fer ensuite phosphate.
phosphate Mhm. zibaq Hmm? bauxite est-ce que bauxite c'est là Et cuivre
minéraux de fer yi rek.
waaw ñu ngi jaar yi yi waaw yi nga xam ne rek nekkul kii précis métal précis foofu moom moo am masal muy jubloo ala an al muxraja lil mabdu lahu munu ñu ne على أن المخرج من المعدن من ذهب أو فضة للمدفوع له أي للمدفوع له أي المعدن المدفوع المعدن له وزكاته عليه وأما لو استأجره على أن المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بمقابل لأنه في مقابلة العمل وفي كومبراني منه أما دخل في على أن المخرج من المعدن من ذهب أو فضة للمدفوع له أي المعدن وزكاته عليه kooku daanaka duutul yooloo dafa ne dagat na kon xayru naqdi bi ujjërati mun nag léegi dafa delluwaat ca masala mu njëkk ma woon ma def oo bi ujjërat na ala an al muxraja min al maadin bi dhahabin aw fiddatin kooku lil madfuu ilayhi ki nga xam ne moom la ñu jox mbell mi mooy koy asakaal mu ne nag bu fekkonte ne dafa ko dafa yooloo mu luye ko ci nekka lu ci génn moom mi nga xam ne moo moom mbell mi moo ko moom muy fay nag ki koy gas mais dafay dana dagañ donte naqdi la koy fay itam dégg lu mbir laa na lu ñuy wattandiku foofu jaay kee jënd kee bi ñu waxoon te nekkul yeneen biyeet yi lu tax nekkul fi yeneen biyeet yi
parce que daf sa bëgg génne.
génn bi génn bi ndax moom li mu gas li ñu wax li ñu appoo ci gas te bu ko gasee rek yàlla bi dal nay war te doonte génn wala génn xamaguñu itam nu muy toll mooy ma al jahli bi miqdaari ahdahuma nazaran li suurati wa liza jaaza dafu mahdi min xayri naqdi bi ujrati naqdi bu fekkee ne mbell mi moom du du du naqdi kon dana dagan nga fay ko naqdi ndax liñ doon watandikoo dañ na amatu ci léegi nag bu fekkee ne ala an al muxraja min al maadini min dahabin aw fidatin lil madfuui lahu ba tey dana dagat dana dagat ndax dafa ne wa jaaza dafuhu bi ujratin xayri naqdin ala an al muxraja ci li ñu génne ci mbell mi lil madfuui lahu ki nga xam ne mooy gas moo koy génn mooy moom li génn dagat na waaw ndax ah, xatar amul foofu wóor na dana génn tam.
xarab xarab xarab am na mooy lan day wóor dana génn tam.
waaw bu génnee na muy toll bu gé wala génn wala bu génn bu génnee na muy toll dama yaakaar ne ñoom am nañu ay tegtal yi wala ne kii fii moom am na am na.
mu des kon am na fi ñu- danañ ci jot wala duñ ci jot mën na nekk ne danañ ci jot waaye nu muy toll loolu mooy problème bi gannaaw moom dañoo apport maamam sama suuf ngay gas bu ci génn nga moom ko ba defee yow yaa koy asakaal ndax yaa ko moom léegi li ma la ko jaayee buñ ko xamee it lay génn ci mbell mi xamuñ ko loolu mooy problème bi ala anal muxraja liñ mën foo inahu te muy mbellum or wala argent kooku dama lay seet xab-xab wala xif xif daal yaakaar ne warul dagal
tey bu mel ne yaa ngi mbooloo bu ñu gasee ba àgg te fekkul ci biir daal nga xam ne tey mooy mooy xaaral xaaral bi moo tax sànq mu ne mën na am ne fekk dañuy am tekkal yi wane ne fii am na fi wala am na fi waaye ba tey xamul nu muy toll.
xam nga fu mel ne fii ñu doon gas si pétrole waaw moom dañoo gas ba fi mu dugg si biir am na ko xanaa xaar xatar la woon ndax xamuñu ñoom te ñoom sax dañ lay wax ne ne wóorul am na tekkal yoo xam ne buñ ko masaan gis ñaare dana am pétrole maanaam buñ ko gisee ci fukki béréb juróom-ñaar yi dana am pétrole kon nag wóorul la xaw ma dañ ko wax pour ndax nit ki bëgg a lekk xaalisam ndax bëgg nañu client wala dëgg la bu dee dëgg itam xatar la xamuñu am na wala déet Cheikh yow nekk fii léegi nag ñu am wala gën a mën ceeb bi caabi moom la ñu koy moo koy rek set set daal kii xel kii bi ci def zarqaan yi ñu xam waaye nag ki nga xam ne moom la ñu jox mbell mi mu di ko exploité mu moom lu ci génn di ko asakaal loolu mooy problème bi ndax nu muy mën a dagane moom mooy jaaxal ci lépp lu ciy njëriñ muy bu mu gis ci mbell war koo gas xam nga kooku moom la ñu jox bell bi ndax moom lañ jox suuf si maanaam àtte suuf si këlee ko moom mu luyee suuf si mu nekk tool la mu luyee ko beneen waay mu ni dagan na nag mu gas xam nga waa ji moomoom suuf si buñ ci gasee mbell benn ay kan dana nekk ci toolam mën naa am gënal na ko mën naa am gënalu ko léegi moom la ñuy fay ndax suufam suñu gas waa ji nga xam ne moom mooy gas li ci génn moo koy moom
dëgg doon toll yàlla xam nga ñaari masala la waaw waaw kon léegi ki nga xam ne mooy joxe suuf si waa ji di ci seet mbir
loolu lañ charpente fi def waaw mu gas nag jot mbel la ca moom ci suuf si li ci li ci nekk ci moom ci suuf si moom waa ji gas moo koy moom moom aamil ji léegi nag borom tool bi luy woon nag ko benn bu fekkee ne ci mbay la léegi dana amaat leneen lu ko war a jox ndax dana gas suufam muy di ko jirti gis nga nag ni mu waxee wa ala xam nga moom dafa def rek ala anal muxraja loolu moo tax mu lëntal kii bi mais li ñu waxoon moom noonu la mu munu la dagan mu ne wa dana dagan mu jox ko suuf si mu gas ala anal muxraja ci naka lu ci gën lil madfu'i lahu ñeel ki nga xam ne moom la ñu jox suuf suuf si de amee mbell bi kon ñu yokk ñu yokk fii wax waaw bu ko defee gis nga nag moo boo delloo kii ci shara bi ala anal muxraja min al ma'dani min dahabin aw fiddatin lil madfu'i lahu ñeel nga xam ne moom la ñu jox dall mi al ma'dani al ma'dani wa zakatuhu alayhi moom moo koy asakaal itam mu ne wa amma law istaajara bu fekkonte ne nag daf koo luyee moom mi moom suuf si daf ne ko mbal li ci nekk maa ko moom dama lay luyee nag maanaam dama lay fay nag nga gasal ma boo ma gasalee lu ne nag du ko fay ci gasal ko ba gis nga xamul dana gis wala du gis waaye mi ngi koy fay ci dooleem bu gasee lu mat lu xóoti ne taxawaayu nit wala ñaari taxawaayu nit danaa la fay nangam moo xam gis nga wurus wala gisuloo wurus wala boo gasee bisu lëmm wala ñaari bisu lëmm ma fay la nangam moo xam gis nga wurus moo xam gisuloo wurus xam nga ko xatar nekkatu ci xarar nekkatu ci moom bu gasee loolu rek yool bi ñeel na ko léegi nag kii seet moom moo xam gis na wala gisul mooy wa amaala wistaajira ala anal muxraja lahu liman lahul maadinu wal ujratu lil aamili moom daf koy fay rek kon it mu dagan kooku nag bu ko dee dag fay moom donte kee la koy fayee mu ne dana dagan dégg ngeen ko léegi muy nag waxtu bi ra xalam ne fat na min kullin moomeelu kenn kenn ku ci nekk masalan bu fekkente ne amil yu bari la ci menn mbell képp koo ci xam ne kii bu ñu séddoo kenn ku ne la nga moom la ñuy seet duñ ko boole dañ seet kenn ku ne li nga moom bu fekkee ne li nga am mat na nisaab da nga koy asaka mooy waxtu bi rek xalam ne fekk mulki kullin moomeelu kenn ku ci nekk la mu am bu matee asaka mu asakaal ko waaye lépp nga xam ne bu ñu ko boole woon it dana mat asaka waaye bu ñu séddoo kenn ku ne li ngay am du mat nisaab kenn du ci asaka wa moo tax au fii ndax ci wax mu jëmoon bu ñu woon dama dama dama la koy luyee damay yooloon te yow bu gis uñ ci xaaj ni ki tey lu ci génn nangam li ngay moom sulus bi wala rubo bi wala sumun bi kala xiraat bi naka woon ca xiraat ndax dana dagan kon wala du dagan xawlaa ne am nañ ci ñaari jamtal ndax kon itam kenn ku ci nekk da ngay asakaal la nga am wala dañuy seet alal ji lépp na mu toll ñu asakaal ko xaw kal xiraab bi naka mel ne dañ ko bokk bokkuloo ba tey xawlaa ne am nañ ci ñaari wax xam nga xiraab ci boppam duñ ko xiyaasee warul woon dagan ndax yéen a ngi sédd yéen a ngi waxante loo xam ne xamagul dina am déet ni ki ribxu bi boo ci amee nis ma am nis te mu kon coono bi muy sonn mi ngi koy jëndee loola te loola xamagul dana am déet wala nu muy toll waa gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom daganalal na ko rek ñu ne nag kon li niroog xibaar te yonent bi daganalu ko wax ndax waxuñu ko woon moom dañ koy yéegal ci xiraat ndax li mu niroog xiraat te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganaloon xiraat te kon mu dagan wala moom kay gannaaw loo xam ne lii ci esprit sharia rek araam na lee lu leneen yi fi boppam loo xam ne yonent bi ko daganal boppam kon sallallahu alayhi wasallam kon li ci des li mu daganalul duñ ko kii mooy xawlaa ni am na si ñaari wala maa dañ cee wuute ñii ne moo xiraat la niroo te sallallahu alayhi wasallam daganal na xiraat ñun nag gannaaw xiraat moom lu waroon a araam la bu ko yonent bi daganalul woon kon leneen lu mel ne moom te yonent bi dagal na du ko araam araam loolu mooy xaw naa ko dégg ko mu ne wa fi nadratihi misig néewam dafa gas gis benn daggeet wurus rek wala xaalis boo xam ne mu ne bu aajo woo kon sellal ci waxe ñu al fawd yàlla
fekkante ni moom dafa ñëw pour dafa dafa yeewu xiraat. am xelam la wóolu xam ne fa amul bëgg a jëf. maanaam ñu ko wóolam xelam. jéem a liggéey ci sa alal. dañu am ne comme bu bokk ak léegi xam ne wóoru ko ndax gasee ko ne ci jot wala jëriñ jot. lii moom comme tamit si moom dafa mën da koo mën. bëgg cee liggéey ci sa alal.
waaw commerce daa nit ki mën na wóoru xelam mën na wóoru itam tajribaam maanaam expérience am. kii di commerce na ba tàyyi xam ne dëkk sàngam la fa yomb ak la fa jafe mu xam ne lii moom buñ ko jëndee bu demee foofa war na am prix bu baax waaye ba tey wóoru ko mën na soppi ko marché yi mën na soppi ko ci diggante bi te itam talaf mën na am ci diggante bi ci alal bi loolu mooy ba tey ndax lu amagul la amagul mooy mooy xatar ëpp na sax xarar xarar ji mooy xamul rek nu mu toll wala daan si jëfandikoo waaye xatar mooy loo xam ne xamaguñ dana am dana am am déet comme xamaguñ dana am bénéfice wala du am bénéfice wala talaf dana am ci diggante bi ci alal jooju wala déet loolu mooy xarar bi nga xam ne bu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul woon kon fuqaaw yëpp dañuy daje ci ne araam na ndax xarar xarar a ngi ci diggante bi xarar lu ni nag léegi wa fi bidrati mi ci néewam alxumus nga xam ne moom warul mëtu parce que benn reen rek la jarul sax kii sell xumus bi kër rikaas yi day demee ne kër rikaas xam nga waxoon na la kër rikaas yi al xumus yi cinquième bi lay génne xalifa bi moo ko moom nga ne ko rikaas mooy lan mu ne waxu moom difnul jaahili difnul jaahili yi mooy robu ku dundoon ci aslu jaahili yi nga xam ne jamono ji jiitu islam la woon nga xam ne dañu daan denc seen i alal suriise bi ñu di ko suul nga xam ne booba alal yi ay wurus ak xaalis la daan doon kee mu denc ko ci koñu néegam xàmme ko ko léegi benn mu dee kenn xamul fa mu nekkoon wala mu nit ko réer wala mu dem ba xamatul fu mu ko defoon mu yàgg léegi doomu aadama ji nga xam ne day gas ba daj ci loolu alal ju kenn moomul la léegi xumus bi rek cinquième bi lay génne jox xalifa bi moo ko moom waaw li ci des mu moom ko lii ne kon moom comme benn ren boobu nga xam ne matul dara te aajurul sax sellal bu fekkee ne dafa gas mu génn ci xumu si da wax résultat bi wayin bi sàkkin mu ne doonte àndoon naag sikki sàkk itam dégg nga maanaam kii dafa sikki sàkk ndax lii mu jot dif ñu jaahili yuñ la wala déet ndax li gën a bari ci jamono ci alal yooyu ñu fekk benn lu mel ne ndaa ñu def ci ay ay xaalis ay morceau dagg di xaalis wala ay xaalis ngudd wala ay or ba noppi tay ko ban gas suul ko ñaar li gën a bari jeexil yoon yi rek ñoo ko daawoon moo tax donte sikki sàkk nga ne est-ce que diw fii nit dëkk feen dégg nga ci jamono yi dañ ko wéer noonu ci jaay ci ci jaahiliya bi mor bi suul boobu def naa du tax mu ñu alam ci ñun déedéet jaahil yi bi mu ngi tekki rek jamono bi jiitu lislaam mooy l'époque anti islamique li jiitu islam ñu ko asum jaahil
waaw te di leen roy ci seen i seen i jëf yi nag ca jàpp boobu xam daanaka du ñu julli waaw ñoom du ñu julli léegi ba tax na gannaaw jógee nañ ko ñoom amuñu ku leen war a doon amuñu ku leen war a doon amuñu woon diine xam nga doon sart nañ ci ñaata charte lan lan lañ charte ci pour nga mën a doon nit
ay jullit waaw ngeen bokk diine waaw muy ji jullit na yow bu nit ki bu bàyyam day yëfar moom muy jullit bu dee du ko doon waaw te reyu ko bu ko reyee it du ko doon war ko rey nit doo ko doon doon te sa bàyyi leen nga rey ko doo ko doon wala leen ak leen des na waaw doom ji ñun du yéeg doom ji daga moom du yéeg du doon wax dëgguñ ko doom sax ah. ah waaw moom la ñuy wax. di ko doon déedéet du ko rey rek di ko doon waaye des na benn charte nag. doom ji mooy doom ji jubluwul ci yoon. bu mënu ko wóor nit sax. sharia moom loolu wóoru ko ndax xamul mënu ko wóor amul dara lu dul mën a garanti ne moom la benn
bu ko wóoree rey bàyyi
bon dégg nga ñetteelu charte yi waxagu leen ko
ma mbokk hmm?
mbokk
bu jóge ci ah lépp maanaam bu lay waaw moom moom moom loolu moom mooy tax sax ñu war a doon bu amul nag yu ko war a yàq yoo xam ne mooy tax du ko doon nati léegi loolu am na ba noppi am lu tax du ko doon wax ngeen ne nañ bokk diine wax ngeen ne bu mu ko rey
ñu waatoo it
maanaam li aan jóge ci rëbboo kooku itam boobu dootu doomam daa doo jéeg
na bokk suñu yàlla wax ni war na koo doon mooy ñan
ki lay jottali ci waaj yi bu mu fi ne ki la war a donn ba noppi laa wax war na la donn waaye am dikk sam sababu xew dikk ba tax duut la donn doon doon mooy bu ko waxee dañ leen xew xam nga du loolu mais ñu sikki sàkk ci ndax ku si njëkk a dee mais nekk tey maanaam tel ñu nekk ci kaa bomb bi dal diñ ñu ne ñu ñu fekk leen ñu dee xamuñu ko ci ci njëkk a dee ko doon kenn du ci doon sama ñu dugg si bato bi bato bi kuule ko musu wax ñu xam ne dee nañ ñoom ñaar ñi xamuñu ko ci njëkk a dee ah wala accident ñu fekk ñoom ñëpp ñu jël leen fa ñu dee mais bu fekkee ne jëlee nañ fi kenn ci mu am mu dend ak am amee bakkan ñu yóbbu ko hôpital après mu dee dana ko doon mais bu fekkee ne dañ leen fekk ñu dee xamuñu ku si njëkk a dee du ko doon léegi nag xam nga kii waaw ba tey sax su fekkee ne bomb bi dafa dalal loolu nga def dañu xam ku njëkk a dee ndaxte léegi dafa am ay machine yoo xam dañ naan dafay di ko calculer ak bu cadavre bi xëy na environ bi nuy la yooyu suñ demoon ba am ba man ci am lu wóor mu wóor ni moo ko njëkk a dee dana ko dal bon loolu wax na ci sax
وين بشكل آه او قد بشكل بشكل او قل ولا من يولول او ارضا ولا مرسنديس دونك او قل موي li ñu waxoon mëdërëb doon lu mu néew néew te néew lool dégg nga wala muy marchandise nekk tey du woon mbell mbellum kee nga fekk muy përëm bi ñu waxoon wala yu mel noonu ricage bu ñu ci fekkee loo xam ne lii benn ci nit ko gis wala marque wala yeneen yu mel noonu mu fekk ko léegi bu ko jullit boo xam ne góor la du mag mu kàlla fekk ko koo xam ne dégg nga dana génne xumus bi mu ni nag in wajadahu aw wujida la aw wajadahu wala fekk rikaas bi abdun ku ñu moom ko kaafiru wala yéeféer waaw wala xale kon itam danañ génne xumus bi rek dégg nga mu ni illaa li kabirin ndaree boog li kabir yi dafa xatin boog dégg nga xam ngeen ne bu fekkente ne dafa matul nisaab dafa matul nisaab nga xam ne xumus bee ci war xumus bi rek la ñuy génn wala nga xam ne léegi marchandise la niki loo xam ne tuddu wuñ ko keer marchandise la mooy li ñu waxoon kii wër wala yooyu dégg nga xam ne ba tey xumus bi lay génne wala nga xam ne ki ko ki ko kii benn muy yéefar xam nga yéefar alalam asaka waru ci waaw lu tax asaka asaka waru ci alal yéefar xew mu xaafali charay mais yaa ayyuha alladina amanu la ñu wax ndax bu jullee rek bu jàppee julli dana baax dana ci am ci yàlla kan yëf yëf yëf yëf jàmm lu tax daal du jullit jaaw yoon li nga amul dafa tuubul dëggul ah ci nodd bi waaw waaw si sa kaa waaw
waaw waaw dégg nga kon de naka noonu alalam kon asaka waru ci ki ñu moom ki lu tax asaka waru ci ci alalam moomul dara ndax bu neexee waa ji mu nangu ko kon dong la illa li kabiri nafaqatin dégg nga aw kabiri amalin wala liggéey bu bari dafa am dépense bu bari lool dégg nga wala mu liggéey muy liggéey moom mu xam liggéey bu metti lool bu koy waar wala jaamam fi taxlis yi ci sellal ko faqat rek kooku moom faqat ci taxlis bi rek kat la faqat ji dellu nga xam ne ci sellal bi dong ci la liggéey bu bari boobu dégg nga yëpp bu teel bu ci nekk rek daf koy xumusal dafa maanaam bu bu ko séddalee juróomi cër rek benn bi la xalifa bi moom lu ci def moo yóbbu ko asaka waru ci
illaa la wax illaa li kay ah illaa li kabiri nafaqatin waaw waaw illaa li kabiri nafaqatin moo firi ko ba ñëw kon bu génne ci ah déedéet ah maanaam
mu mel ni dafa xam ne bu dee tegal na ko kon bu génne ci waaw xam nga defe ne awajadahu abdun aw kaafirun waaw ba tey yooyu yëpp ñu génne xumus bi illaa li kabiri nafaqatin ndare ngir maanaam dépense yu bari aw amalin wala jëf yu bari fii tax li si fii faqat rek kon fa zakat bu kuriha si bee fat na xafru qabrihi di ko gàcce di gas bàmmeelam alal di fa nekk alal di fa nekk masalan kii daal ca jamonoy jaahil yi la jaahil yi ne mel ne kii suñu mbokk yi kii égyptiens yi ba tey égyptiens yi aada aada jooju lañ amoon kii la yi séeréer waaw séeréer si ak yooyu nga dem gas ko ah déedéet doomu aadama laqad karam naa bani aadama aadama ñëpp la dégg nga alal jooju ñu suur nag di ko am ci nga xam ne dañ koy maanaam jàpp la daal dañ koy maanaam comme ñoom wala boog ñu mel ne Kabrousse yi ci ci Casamance Kabrousse Joola Kabrousse ah kapus dañuy denc alal dañuy bari alal maanaam boo boo faatoo li nga liggéey waaw dañ koy dajale dañ koy dañ koy wàññi seet ko boole ko wóor suuf am ñu la yóbbante waale ci ay mbokk yooyu dañ ko war a dindi parce que même même bu fekkee am na ñi koy doon nga xam ne ñoom ñoo ko moom normalement sib nañ ko rek la wax
ñoom kay duñu doon maanaam moom du ñu ñoom liggéey ñu doon waaw dama ne ñu ko waroon doon waaye nag bu du ñu jullit est-ce que ñu du jullit duñu doonante daañu doonante yëfar dana doon de dañu bokkul ak sunu sharia bi ñu ko tëral ni mu tëralee doonante waaye daañu doonante et puis alal jooju ñu kii ko araam na jullit ñi rek la ñu sib ñu sulli ñu sulli bàmmeel boo xam ne jaahil yi moo ko moomoon ñu xalaat ne alal ju bare ngi ci li tax waxoon jàngoon alqabru ak sun laa yumsa alayhi ma daama fii saahibu wala weesu woon nañ ko weesu woon nañ ko kon bàmmeel kenn waru ca dëgg kenn waru ko gas xub su la loo xam ne daal maanaam place am la boo xam ne moo ko moom moo ko moom ci yoon keneen amu ci benn xàq dara lu dul ki ko war a doon nag ñu dencaale ca loo xam ne jubluwuñ ko muy alal ju bari sañ na ko dindi
léegi nan ñu def léegi nga xam ne ci armée di def dafa lay wóor ne armée bi fees na waaw di léegi ngay ñëw di gas ba gis ci sax ay kii la Ay yoo falax xam ne- rek tuuti daal di dugal ci biir biir jàmbur la woon fekkee ne nag amuñu benn place ñu dajale wax wax yi denc ko fi ñu am ci ko ci wetu waaye su fekkee ne amuñu beneen place buñ dajee yeex yi rek dañu war a suulaat
armée yoo xam ne waajur bi naan bi naan armée dañ ko duñ ko suñu jaay Hmm?
armée boo xam dañ ko boo xam dañ ko suñu jaay waaw ñu ngi gis njëriñam waaw ñu bëgg a tonne armée yi dañ ko fàtte pour jël njëriñam loolu ñu ko def ah dañ koy def kay Côte d'Ivoire defoon nañ ko fi waaw même même même Taïba Taïba gis naa ko ba di ko benn problème bu mag ci benn benn nit yàlla ñu ko denc nitu yàlla waaw man ban ban ba ba indi fa benn indi fa benn problème ñu ñu ñu ñu nekk parce que dañ doon bu ñu yeggee ci dem rek dañuy ko taxaw. alors daal di jël benn tonne alcool yi. ñu ko def alors di ko def noonu di ko def noonu.
Loolu nekk ci benn benn benn dëkk. déplacé wu. ñu déplacé ba pare ñu tonne alcool yi egg ci benn alcool boo xam ne xam naa ko moom moo ko ko kii la. ak di ko ko tonne ak am fa ay ay ay ñaari xam daal ñu ko ñu ko jël. ñu ko def bàyyi ko bàyyi. mais am na jël dañ ko tonne foofu.
liñ ko sañee liñ ko sañee defee daal muy maslaha néew bi ci boppam ni ki tey néew bi fi ñu ko denc dañ ko mujj def ay bàmmeeli yéefar yéefar yi seq ko wala ñu def fi loo xam ne yelloowul ak loolu dañ ko def léegi tey ay cabinet wala fu mel ni ay fowukaay yu mel noonu ñu dindee ko fa yóbbu ko fi nag kooku mën na nga xam ne maslaha néew bi ci boppam a tax ñu ngi ko fat rek dañ ko xam.
ah dégg nga mooy ukuree si defar na xafru xabri yi ñu gas bàmmeelam daal kooku kooku li dégg naa bi ñu ko bindee def mel na meloon loolu dégg naa ñu di ko wax xam kooku moom voilà li ma doon wax daanaka espèce mas la xam daanaka la ndax foofu dafa ma dafa mujj dafa nekk xamul mesure des jeunes xamuñ kenn xamul dara te stade ak yooyu xam nga mbiri football ndax néew yi dañuy loru ci li ñuy def ci seen i ci seen i wet dañuy loru ci li ñuy def ci seen i wet te muy ñaaw muy bon dañ ciy loru man dégg naa dénkaane woon nañ leen ko indi voilà encore bu fekkente ne même ay néew ñu nekk fii ñëpp ñu taxe ñu ñëw suul fii yéefar wala ñu suul fi jullit bu sàggan dana leen lor dana leen lor xam nga néew moom dañ ne bu ñeent fukki guddi yi passé su dul nitu yàlla rek dootu génn bërëb boobu roo xam dootu génn bërëb boobu ñeent fukki guddi yi nag fekk àgguñ ci moom roo xam ne daje dem këram di seet lu fay xew ndax fa ñooñu ay borom est-ce que kenn dóorul doomam wala ñu naxaral ko est-ce que nekkuñ ci lu dëng wala yooyu bu amee ñeent fukki guddi nag ñëw toog jeex na dootu mën a dem ci kenn ñu xëy na awliya yooyu awliya siddiq wala shuhada yooyu bu fekkee daal fu koy lor la dana gis sax même nit yàlla yi am na ñoo xam ne yoo xam ne bu fekkee ne dañu leen denc koo xam ne ñu sàggan bari na rarement la ñu nekk seen bàmmeel waaw te toolu fi tasaroo fi sama inna am la écrédité la ala léegi nag woo ba tey sib nañu ab talabu sàkku ko moom alal ji fii ci bàmmeelu jaahil yi boobu day wut alal rek léegi di gàcce wala di làmp noonu ndax moom daal lu mel ni ñu wax léegi ñu dem ca kii yu séeréer yi am na ñu koy tuddee sax seen jël boobu maanaam waaw maanaam mooy xam nga mooy Cheikh Anta Diop loo tax mu ne séeréer yi Égypte lañ jógewoon xam nga pharaon yi noonu ñu defoon nga xam ne xalaat boobu ñu xalaatal ne nit ki bu dekkee dana mën a jëriñoo yim daan jëriñoo yëpp xam nga boo demee égyptien musée musée ba da ngay gis fleurs yi yiñ daan yiñ daan teg foofu seen seen taabal yi da ngay gis même mburu miñ daan lekk ma nga fa ci teg sa bët nii ak genre yi ma ngi dal yëpp dañoo xalaatoon yëpp dañ leen ko soolaale woon xalaat ni daañu ko mën a jëriñoo ba tey loolu mooy xalaatu séeréer si fekk na mas naa dégg benn góor ko wax yàgg na booba xale la mu ne Firawna mooy maami séeréer yi noonu la ko waxoon moom ñooñu ñuy wax kaang yi ñuy wax kaang la xam na waaw xam naa waaw si xam na moo am na benn espèce de démonstration ñu bëral leen loolu nekk bidaa de loolu nekk bidaa de loolu nekk bidaa de waaye nag bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoom seen mbokk rek a fa nekk te ñu nit ñu baax mën nañ fay bëgg a yóbbu koo xam ne baaxul ñu bañ ne duñ ko fi denc kooku sañ na wala ñu ne nañ ko def ca boor yi
na fu ci fuñ ko teg dañoo moom suuf sa wala ah bu dee ñoo moom suuf sa nag ñoo am seen ñoo am seen kenn sañu leen forcé waaye bu fekkente ne dafa yaatu ñeneen xaj fi nag ñu ne kenn du fi kii ngir nay nanu duñ leen ci bàyyi waaye bu fekkee ne ñoom ñoom ñu sàkk seen bërëbu bopp boo xam ne seen bopp bopp boo xam ne ñoom rek fay ne waaw te sañ nañ ko waaye nag bu dee lu mel yaatu xam ne ay bàmmeel la ñu bari xaj nañ fi ñu bëgg koo tere ñun ñi ñoom kenn du ñu ko sañ ñu ne dañuy defar rek.
waaw ñëw ku ñëw rek teg ci.
teg waaw waaw teg loo rek ñëw par ordre bëriw après dafa nekk ay canalisation bi.
waaw si bàmmeel juri ñu lañ koy suul di xaru jullit li de
ndax moom bëgg ndaw si loo si dugg. léegi nag mu daal di ne ndaw si keneen dootu ko jëriñoo daal di leen ndaw.
ci kaw yooyu bu ñu ko rees noppi alors mu daal di mu mu mu mu mu ñu kile ko mu daw daal di war daal di benn fas daal di war benn fas daw ba ci géej gi parce que ñu ngi fa benn jaay mu def ci xeex rek bu bu France
waaw tànn na tànn na dee bu métti de waaw moom mu nekk bu ñu dee mu toog quelques jours géej gi mu toog quelques jours géej gi génne ko encore bu ko génn ñu dem ñu la wax ko ñu dem ñu ko ñu ko tudd alors ñu ne ñu ngi kat ci suuf ñu la wax seen maasu seen maasu ne kat ci suuf mu ne mun ko seen maasu ne ko fekk ni mooy gis nga dañu tur yoon ci yoon moom chere moom daggan na ci si turu jullit yi sax lañ leen war a suul waaye li ma waxoon ne ay nit sañ nañu bu dee ay ñu baax ñu nekk bërëb ñu bëgg fee indi koo xam ne kii borom yi bàkkaar la li ma waxoon ne dana leen lor loolu ñoom ñooñu mbokk yooyu sañ nañu ne duñ ko fi def loolu xam nga waxoon naa ko léegi waaye nag ci bàmmeeli jullit rek la ñu leen di suul duñ leen suulul foofu it duñ leen yóbboo ci yeneen bàmmeeli ne bàmmeeli jullit ndax même ki nga xam ne dafa bañ a julli te nangu na ne julli gaa moom lu yàlla santaane waaye am lu mu dëgg ak lu mu mën a ban ba ne du ma julli xam nga dañ ko rey ci yoon bu ñu ko nee julli mu bañ ba nga xam ne waxtu wi lu ci des benn rakka ak ñaari sujjóot ñaar rek ci des bu ko defee jant bu dee bu dee takk ak jant bi so bu dalul di nangoo julli rek ñu rey ko daañu ko sànq sànq jullee ko ñu bu ko see bàmmeel julli du daañu ko jubal ak xibla daañu jégalal bàmmeel daa julli si kooku xaru itam même chose maa ki xaru nag tere nee ñu ku gën bu ko jullee ku ñu yaakaar nga dee la loolu itam ngir jàjj nit ñi pour ñu bañ a xaru waaye jullit lañ ko compté parce que bàmmeel jullit ñi lañ ko yóbbu ñii moom nag am na am na nit ñu baax ñu am seen kilé na sañ nañ nga duñ ko fi dugal ñu mel ne kii naan sàngara wala mu kii yooyu su leen neexee waaye buñ ko fa jëlee bañ ko faa sóoli dañ ko sóoli koo xam ne bàmmeeli jullit lay doon te li ñuy def jullit ña lañ koy def bu àggee foofu nag dootuñu ko nangu boo demee nag ci diggante bi gaa bu fi nangoo waxtu yi ñu koy xuppi yëpp naan ko tuubal dañu lay rey de tuubal diggante boobu yëpp bu fi tuubee daañu waaye bu ñu demee ba nga xam ne benn rakka kese kese kese moo des ci waxtu yi pour mu wéy ñu ne ko jullil mu bañ léegi ñu taxawal ko nag pour rey bu nee naa julli naa tuub it mu ko def ñu ngi tëgg bu saxaar yooyu yëpp xam nga bu ne li am na mu des chouette muslim waaw wal qabru laa laa yusu bal yu sànni li am na mu des chouette muslim ولو تندم وقال افعله يخاف مثل لكن اليس يقبل wala mu ne wala bu ki nga xam ne nag moom dafa weddi julli moom kooku mu neex wala sa yukfanu wala sa yukfanu wala lahu salaatu wala sa yukfanu kooku mooy ki nga xam ne moom yéefar lañ koy compté ki ne julli warul julli ku neex mën nga julli ku neex nga bàyyi te ne julli la ko bu julli du danga julli tam kon ñu koy fa am tam laaj boo xam ne dama jaaxaloon sax am kii ko après ñu ñu benn laaj boo xam ne daf ma kii ma ma laaj ko bala bala après ñu kon ne bala ma tàmbali laaj bi maanaam ñun fi mu nekk réewum réewum jullit la ñu ñu ñu ngi jàng ci téere jullit yi ñu jàng ci àtte jullit yi ah waaye kenn ku nekk xam nga ne am na lu mu am te te mu am woo waaw ah waaw léegi bu fekkee ne man ma ko sama wala def sama benn mbokk jullit ah waaw alors moom bëgg man ak seen ah ñu dem ci koo xam ne vraiment koo xam ne koo xam ne kër sax la ah ñu àtte ci yeneen ay texte yu kenn xamul waaw loolu bu ñu ci àtte woo daggan na ko ñaar loolu dëgg ñu
jurit bi bu fekkee ne moom moo ko tey xam na ne kii du àtte dëgg yoonu lislaam benn mu xam ko wala mu ñàkk koo xam xam na ne du ko àtte moom ci boppam mu coobarewu dem àtte wu ca tooñ na boppam ba ma leen yàq du ma anzal la bu fekkee ne nag moom amu ci pexe benn ki muy xëccoon moo dem porté ko falam ci bopp xalaat na ñu woo ko sañu la bañ mu dem ñu àtte ko ca moom ci ñàkk pexe la rufia an ummati alxatau wa nisyaanu wa mastukrihu alayhi sama xeet yi baal nañ leen lu ñu juum def lu ñu fàtte ak loo xam ne dañ leen caa forcé duñ la taxaw woon ak jees ne la faseel faseel sa soxna bénéficié naa ko yoon du ko jàpp
xam nga nag ci problème boobu nag. beneen beneen ki def ci génn.
beneen beneen affaire def ci génn. mooy dama gis ni dafa mel ne kon lislaam dafa ñuul.
dafa mel ne dafa mel ne kon lislaam dafa ñuul ci Sénégal.
dafa ñëwul dafa Sénégal ñuul ñor ñor ñoru leen ndax ñun ñoo fi nekk.
waaw.
te te li ñu àtte li ñu àtte baaxul. te ñëpp ñëpp di leen jàpp kenn kenn du fi kenn du fi jàmbat.
waaw benn jàmbat na la leer ne dana jëriñ te du lor waaye bu la leeree ne amul njëriñ amul njëriñ bu dee lor nag day araam juróom Ibnu Taymiya wax na koo xam ne fekkee ne lii moo gën a rafet lii waaye lii yoon la ndax waaye yow kenn boo ci demee yow dong nga ciy nekk ci réew mi ñu ci des ñëpp ci ngir mu bañ a indi bu wuute jullit ñi ba indi soosoo ak foñoo bàyyi ko fekkee ne itam lii lii tax mu sallallahu alayhi wa sallam ne utruku tilka maa tarakukum waa turki na ngeen leen bàyyi feeg daluñ seen kaw rek bu leen dal seen kaw bi ñuy jihaar di xeex ak réew it booba xeex nañu ak Iran xeex ak Irak xeex ak Yamama xeex ak réew yu bari Cham ñu ne irshad la du amran min sunna irshad la moo di ne dafa bëgg a xam le ne ñooñu ñu am kàttan lañu te xam xeex bu ngeen fagguwul ba mu ba mu mën leen a kii bu leen ci dugg na bu ngeen ci duggee loolu jullit ñu lay doon buñ leen notee seen islaam lay doon loolu mooy irshad wane ne nit ki lépp loo xam ne am na lor te njëriñ li nekkul lu wóor ngir wattandiku lor boobu war na ko bàyyi bu fekkee na xam na ne dana indi njaxas ci biir jullit ñi li tax ñu ne waxtu woo xamee ne benn nit taxaw na woote xilaaf ba mbooloo wër ko d'accord nangu ci moom ñi ëpp araam na euh, nga def rebe- rébellion ndax day dal di indi xeex ak soosoo ak teqali ko ci jullit ñi bi nga xamee ne shura bi shura bi fi Seydina Omar di jógee te deful ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon bàyyi nit ñi rek ñu seet bañ a wax dara deful ni Seydina Abubakar defoon tànn kenn lu dul lu tànn juróom-benn ni leen ngeen waxtaan ba kenn ku ngeen ci d'accord ba def ko muy xalifa mu nekk bu ñeent ñi bu juróom juróom benn ñu dajee kenn ki des nañ ko rey nañ ko nañ dagg baat parce que kooku day indi fitna ah bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam bu fi jógee te waa Madina jàpp ne ñoom ñoo war a ci ñoom la ñu war a tànn xalifa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muhaajiroon yi waa Màkka ne ñoom ñoo war a tànn xalifa bi bi nga xam ne dem nañ ba d'accord dafa gudd xissa bi ba Seydina Abu Abu Ubayda Abu Saad ibn Ubaada bañ a def mu bàyyaa Seydina Abu Bakr def nañ lañ ko waxee Seydina Saad ibn Ubaada dafa toog ay fan ba Seydina leen ko yéexa def mu bàyyaa al ba Seydina Saad ibn Ubaada moom mu ji génn réew mi ba dañ ko fekk mu faatu ci fi mu doon sangoo nit ñi naan jinne yee ko rey jinne yee ko rey xamul lu ko rey dafa faatu rek génn mu réew mi
laaj bi mu laaj dafa am lu ma ci dugal mu leeroon ba bala kii ndax xam nga fii ñu nekk ci Sénégal yi nga xam ne l'islam newu fi te police fi nekk léeg-léeg nga am benn waajoo xam ne da lay fitnaal te moo la ëpp doole wala yow rus nga sax di xeex ak moom te rusu ko waaw
kon yow police rek la ci mën a musal gannaaw yàlla waaw léegi foofu dem kalaame ji ko police wala waaw ki nga xam ne it dafa yoreel bor jël sa alal yore ko mu wóor la mën naa fay mu bañ dëgg te mënoo koo duma mënoo ko dara kooku mën nga koy police
loolu ñu wax kar ulmu fasi bi addarurat tubiul mahdurat mu mel ne itraaru ila akli maytati sharia daganalal na la nga naan sàngara ci béréb daganalal na la nga lekk medd ci béréb loolu li ko waral mooy itraar contrainte soo fotee fii bu nekk surtout di la bëgg a rey ndox sore na fi sàngaraat ne nga mën ba mu jàll xanaa dem ci àll amul looloo lekk nga lekk medd bi xam ne boo lekkul ngay dee chose yi tamit ci des bi comprendre mooy ak daruraat tubihu maxduraat ñu ne wa talabu jamaat si dinañ ko di sàkku alal fii ci bàmmeel mu ne wa baaqihi aji desam maanaam rikaas bi boo génnee xubus bi ba noppi mu ne day li maalikil ardi ñeel na aji moom ja suuf sa buñ génnee juróomeel ba ñeel moom mi nga xam ne moom moom suuf sa fañ ko fekk ci naka tey nit ki daf koo def muy kër la tool wala loo xam ne àll bu ñu gor moom ba leeral ko ba mu set léegi bu fekkee ne rikaas feeñ na ca bu ñu génnee xubus bi nga xam ne xalis bu denc moom léegi moom moomoon li ci des moom moom ku moom suuf soosu moo ko moom wuute naa nga génn fii ci àll bi rek for rikaas wala fii ci mbedd wala feneen fii da nga ko fekk suuf si jàmm dina kon bu baax yi am na seen limaani ci at bi dégg nga nga ne ko xanaa daf fekk ne ki moom suuf si ñëpp kenn dafay nekkul xëcc ko moom rek mu ñëw dal fa nag ne dal di koy defal moomeel wala daf koy jënd rek ak yooyu mu ne walaw jaysan doonte itam ki nga xam ne moomoom suuf sa dafa amoon armée boo xam ne ñoo dal ci xeex ba moom ko itam nga xam ne ci noteel la ko moom du lu mu jënd du lenn ba tey bu bu farikaas feeñee moo ko moom mu ni wa illaa su fekkente ne nag nekkul woon ci suuf suñu moom soo xam ne kenn ko moom mooy àll boobu nga waxoon rek wala mu nekk ci suufas lislaam soo xam ne ci réew bi réewi lislaam la nekk wala mu nekk ca suuf sa nga xam ne réew ña ñuy xareel ñoo ñaa fa nekk kon fa la ca des ci buñ génnee xuus ba li waa ji di ñeel na ka ko fekk ka gas ba ba trouvé ko dégg nga lu mu ci teg wa illaa wa illaa def mu maanaam musaalixiina ak ndare itam la nga xam ne ña ko fa rob suufu ña ñu yëwan lool la kon falahum léegi nekkul ci suufaf islam nekkul ci àll boo xam ne kenn moomu ko ay réew yoo xam ne dañ daan xeex dañoo xeexoon ak ñoom pour duggal leen ci lislaam ñu dem ba nangoo def convention ak ñun jox nu alal wala ñu nangu di ñu jox impôt wala ñu jox nu ab àll boo xam ne noo ko moom léegi nag la ñu moomal seen bopp ñu feeñ ca rika rikaas feeñ ca maanaam ñu gas ba gis ca njaqal or wala xaalis ak yooyu ñoom ñoo ko moom mu ne fële ñu ne ko ba faw ne illaa am yëji defoo ndare boo for na rikaas ba nga xam ne ki ko ki ke daj rabbu daarin borom kër la di xaar cëñ ca suuf soxla si ñoom kon nag fële ko borom kër ga nag léegi nag bu feeñee si këram moom ñu ko fa ñu ko ba moom misaali ko ne ko moom ñu ko bokk mu ne war jëf nu muslimin xam nga jëf nu jaahil jëf nu jaahilin lañ doon wax léegi nag jullit moo suuloon alalam mu réer fekk defoon na ca màndar ko ñu for ñu ñu dàcce yokk ko ci comme for la comme li nga calfe bi nga dox ba for ko fekk ca xaalis lu ca war denc ko di ko bakkan denc ko rek bu koy gis borom fekk fukki at waaye war na am gat diir boo xam ne da nga koy denc naan at at dañ di ko xam ne xam ne gi yaa ngi koy xamle ci fu ñu yaakaar ne fa lañ ko war a moomee ñu ki tey bu dee ba boo xamee ne bu fekkee ne amu fi imaam ju ju jéngul amu fi itam kooku mën a sarax waaye mu ngi la ba tey ne rek alali jàmbur ñaa ko fexee la booy ah waaye comme xam nga boo koy xamle lu mu waxoon ci risaala fa ida arafa taalibuha al ifaasa wal wikaa axasaha léegi da nga ne ko ñaata la mun la nangam xaalis bu mel nan la weccit la wala ñaata bu waxee la bu la nee fukki junni la nga ne ko ay cinq mille la woon wala ay cinq cent wala ay mille mu wax la ya cay mille yëpp wax la ya cay cinq cent yëpp wax la ci cay cinq mille nga ne ko ci lan nga ko defoon mu wax la portefeuille bi ni mu demee ak lépp mën ngaa daal di rafet njort ci ne lu mu dëgg-dëgg moom xam na mbir mi boo nee moo ko moom am na ci yoo xam ne moom boo ko moomul doo ko mën a xam léegi mën nga koo moom sax te am ci loo xamul am na montre yi ñaari montre yoo xam kenn ki am mo du ma koy yéen am ko yow na montre nu montre bi mel ma ne ko loolu tax ma dee kay moo tax mu mel dégg naa mooy cas bi keroog maanaam nit ñi di jumaa gi dañ koy war a wax waaye di dal dund gu ñu wax lu mu doon nu muy koy dégg naa bi ñu koy wax dañoo wax ñaata moto bi nan la mel lu mu ah mel waaye dem nag naa nag loolu mel ne xam naa li ñuy takk ci loxo sax war naa def moom koy wax rek ma koy jàppee fii naan moom nee monte naa bi sax lu ñuy ñuy takk yéeg ci ñu loxo ko war naa def waaye ñu ne ma noonu daal waaye loolu tax ma dee waaye dina bëggoon a wax xam rek ba demee léegi la gaana ga wax man waay mu ne benn waay muy dem fekk gaana gi naaj waa ngi tàng la bëgg a dee mu di ko sarax mu togg ko ci fas yi nag di ko dem ba ak si dëkk ba ak mu daal na fii yow di waaj a bëgg na ko sama fas loolu moom muy pare dégg nga ñu wax wax rek waa ji boo ko nga ne moom moom fas yi mais kay daal daana gi amul fi dikk mi la dégg nga nangu sa fas dama koy nangoo te ndax amul la wax la ci rek daal naa nga xam nañ leen laaj suufu teg gi bu njëkkatee teg gi bu nekk suuf yoo waa ji mu ne leen ñeenti koppar laa ci daaj kii bu xonq fekk bu xonq boo ko jiitu nga daaj ci ñaari koppar yu xonq ñu woo gaane bi xamul ñu am ñu ne kaw yow yaa ngi yàlla def ñu pare nga ñëwee yàlla ni bëgg yóbbu fa si jàmm mu génn mu génn ni waajal xam naa laa waxanu de ak ko dëng
for am xar ci àll bi xor xor ci àll bi àll bi waaw àll bu sori ndax am na droit rey lekk arab saudi nga wax àll bu sori àll bu sori loolu
waaw waxoon nañ fi affaire u forde waxoon nañ fi sax affaire u waxtaani woon nañ fi damaa gis ku for xar ku ma xam ne si dafa doon dem Dakar mu mu for am bu mu gis am mu mu fiir mel ne xar oto la yor léegi xar ma dafa bàyyi noonu beneen bi muy demaat Dakar jënd paasam yóbbaale mu fiir xar day koy ren fiir xam na léegi la day dal kooku de moom liste la rek waaw lu jullit dëgg la ñaareelu film bu baate yi comme yu waaw mën baaxoon na ko gannaaw bàyyi na baax ñu ngi leen di ñaan di ñaan def maanaam bu nekkee ci dëkk àll yi nga xam ne léegi sàmm da ngay for lu mat ñetti xaar wala ñeent ñu dikk ci sa biir léegi yow am na koo xam ne ci dëkk bi day am espèce cedd boo xam ne bi moom dëkk bi lu lu réer lu réer ñu ne dafa réer rek mu daal di fab yóbbu demee seq ko nji njiitam lu dëng wala sax mu bañ ko caa yóbbu léegi koo yow nga for xar- xar léegi denc ko denc ko app xamal ko ñi nga xam ne bu ñu ko xamee ne kooku du ko yëg ba app bi yàgg ba mu am ci yow at maanaam nga saraxe ko ak ak euh, jébbaloon ko kooku mu yóbbu ko ci buur ba ku dëng ko ci kër waaw te dañ koy boo ko xasee ba xam moom boo ko joxee yéene ko bokk say loo ko yóbbu kon ci boppam say boo nga far ko lekk wala nga nee na yaa yaay fay bu ñu la jàppee si yoon yaa koy fay yow nga xam ne kii dafa dëng noonu la def ba man noppi nga nga romb loo xam ni yow bëggoo ci bàkkaar bëggoo ci la nga bañ ko for dem sa yoon bëggoo ci bàkkaar wala par exemple nga gis benn xar boo xam ne wóor na dafa réer wala nga romb loo xam ne daal àll jàmbur wóor na àll jàmbur la boo ci ko for rek yow dem sa yoon lenn ci nag gis nga da nga ko gis sax fii ci xalil wa tarkul muwaasaati waaye loolu ñaareel lu ci bari doo ko mën a def ci réew mi nu nekk boo ko defee mën nañ la yóbbu police mel na tey nga romb xar moo xam ne soo ko rendiwul day dee te soo ko rendee du métti ngoo ci ko fa dem bu dee ci yoon fayloo nañ la waaye léegi boo ko rendi woon borom bu ñëwee li yóbbu police naan la yaa rendi sama xar da ngay fen li nga wax ni dara amu ci dañ ko bëgg a lekk rek wala dañ ko bëgg a rendi léegi bi nga xamee ne kii boobu fekk nga xar mu réer wala nga xam ne xam ni borom réew ko bu fekkonte ne meneen réew la réew yi juddit donc sañ a bàyyi ñu sàcc boo xalaatee daañu ko sàcc donc sañ a bàyyi dañ koy yóbbu ba xam borom ndax jullit ñi dañoo warlu lante war maanaam jullit bu ne daal dafa am xàq ji la war ci sa borom man loo ko xamal ci lu koy lor war nga ko ko wax loo ko xamal ci lu koy jëriñ war nga ko ko wax bu jëmee ci danger wala alalam wala doomam wala daraam war nga caa def sa kéem kàttan ne inna ma moom ixwatun dafa làmbaale loolu lépp waaye nag bu dee jamono mel na jamono bi mu leer na ne boo ca duggee leneen fekk la ca da ngay dal di wattandiku wattandiku bee jiitu mën nañu si yóbbu ba ñu tëj la ci wala njiiñ la ci sàcc ba àdduna bi dégg ko noo ngi woon fan ñu ne wamaa la nga xam ne nag la fa soo sànni ne ko albaharu géej gi li géej gi gëq ka ambar bi demee ka ambar fëri waa ji di yii ñeel na ko ko for bi laa tax miisin li nga xam ne rek géej gi baaw rek ne ko mukk ci bitti géej gi nga xam ne bari na yi ci nekk ay ay aussi kenn xamut te alal bu ko foree ko moom du ci génne benn